ak Rafah TV ñëppay dañ agréer mbokk yi dal leen nag jàmm gaawu dibeer altine yéen kaay del siwaat si ñetti fanu tolluwaayu jàngoro coronavirus fii si réewum Sénégal ak Vox Populi muy xayma naan lu tolloog téeméer boo jël fanweer yu toftal ñeent ay kaa importé lañu boobee ba léegi lu tolloog juróom benn fukk si téeméer boo jël ay cas contact lañu juróom ñaar yu toftal juróom ñeent si téeméer boo jël ay cas communautaire lañu mu ngi naan soxna yi nag way tawat yi toll nañ si juróom fukk ak ñett yu toftal juróom-ñett fukk ak ñett si téeméer boo jël góor ñu ngi toll si ñeent fukk ak juróom benn yu toftal fukk ak juróom ñaar si téeméer boo jël bu ñuy xayma nag boobe ba léegi jàngoro ji ñu ngay am lu toll si ñaar téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn way tawat fi si réewum Sénégal lu tolloog téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari doomi aadama wér nañu si ba dellu seen i mbokk jamono ji lu tolloog téeméer ak fukki doomi aadama ñoo nekk si loxoy fajkat yi am diwaan yoo xam ne moom jàngoro ja dellu bu fa ginnaaw mu yokk rek buñ sukkandikoo si yenn kaay bi la turbine lu ak juróom la ñu am foofu si diwaanu Louga mel ni tawat ja ñetti fan yi rek da cey def ay jéego yu mag a mag ginnaaw bu ñu séenaatee beneen cas communautaire si diwaanu Touba yéen kaay bi di xibaar naan ba léegi nag lu tolloog ñaar ñu ngi leen am déet tiit ak na buñ a mi ñuy xibaar naan lu tolloog ñaar fukki cas ak juróom benn la ñu am si ñetti fan yi rek ginnaaw bi nga xamante ni bi moom ñu ngay gën a jamono ji te ñoom cas contact lañu ak cas communautaire maanaam wàllante si mbedd mi te xamoo kan moo la jox jàngoro ji mu ngi naan si fukki cas ak benn yi nga xam ne am nañ ko ni ki démb nag dafay mel diwaanu luga moo si ëppale ak juróom-ñaari way tawat yoo xam ne dolleeku na si boobu lee lim Géejawaay toftalu si district sud yëmbal ak Goudiri ku si nekk am benn cas si fukk ak benn yooyee Libération naan Dakar kay si tension dëgg la nekk ginnaaw bi nga xamante bi noonu la patient bu Louga bi wàllee lu toll si ñaar fukki nit ak ñeent wàllante gii di transmission communautaire bu dakkul nag ak ni nga xamante bi noonu la jàngoro ji doxee ay jéego fii Sénégal président Macky Sall nee na ñu dem si li nga xam ne moo di confinement artu ñi nga xam ne ñoo di askan wi artu it war nañ koo amal si séddale ak dund gi nga xam te ni demagul fenn te coow laa ngi bëgg a nag si li nga xam te ni moo jëm si nañ koy transporté ak koppar yi nga xam te ni moom lañ ci tudd le thème mooy xëye ko ak photo Mansour Faye mi nga xam te ni mooy ministre bi gàllo la moom la war a dugal si boobu lee transport ndax benn milliard la ñetti milliard wala juróom benn milliard ak lu coow judd na si ni nga xam ne la ñu war a séddale dund gi nga xam te ni bii moom la ñu war a jox askan wi jamono ji nga xam te ni ñu si bëri ñu ngi si ay jafe-jafe l'observateur del siwaat si fasal si xëdamu njëkkam naan Mansour Faye ak Diop si mi nga xam te ni bii moo gagné boobu les marché coow judd na ginnaaw bi nga xam te ni bi wedd nañu ne juróom benn milliards yi nga xam ne moom la wax ne moom la ñu dugal ci boobu nga xam te moom jàpp na bi a jiite entreprise boo xam ne tax na nga xam ne moom la jëm waxtaan woo xam ne séq na waa enquête mu ngay xam ne naan bu ñu am benn njàqare ci koor gi ñu jëm ndax lépp loo xam te bi war na ci rek ci wàllum dund génn bàyyi nañ ko xel teyit it mu ngi naan mu ngay xetal askan wi ñu jënd masque yi nga xam te ni bii moom lañ jëfe fii si biir réew mi ndaxte lépp dëppoo na ak li nga xam te ni bii moom la kër docteur tëral mu ngi naan nag dañu dalal suñu xel ndax fii ak juróom benn weer jàpp juróom-ñaari weer ab ceeb moom du manqué si réew mi det di bor yi nga xamante bi moom la réew yu néew doole yi ameel ñi nga xamante bi ñoo nekk biti réew wala réew yu mag yi ak càkkuteef gi nga xamante bi président Macky Sall na ko bor yooyu ñu daal koy neenal dafay mel ni nag moom yëkkati na ay kàddu ne yooyu lee bor si diwaanu Afrique ak réew yu néew doole yi dañ ko war a neenal Emmanuel Macron it loolu la gis ak ki nga xamante bi moo di roi Mohamed VI ak ki nga xamante bi moo nekkoon ministre du Tony Blair ñoom ñëpp nag ànd nañoo xalaat ki nga xam ne moo di président Macky waaye fa dafay mel ni mbatar feggul nañu lu toll si ñaar ak juróom-benn fukk les échos donte nag dafay mel ni FMI faragul bor yi réewum Sénégal waaye tamit am na ay yombal yoo xam ni moom lañ leen defal loolee tax yéen kaay bi di le quotidien naan vaccin bu nekk en bonne voie la jamono ji nga xam te bi nag ñu ngay sàkku si réew Afrique yi bor yi nga ki nga xam ne moo di Pape bi ak Macron mel ni fekk si nañu président Macky Sall ki nga xam ni bi moo di président Ramaphosa nag daal di ñeenti envoyé yoo xam ne ay envoyé lañu si moom le mbir ki nga xam ne moo di roi bu Maroc nag moom action solidaire bu ñëpp dëppoo la jàpp ne si yoon woowu la war a jaar jaar na fa Serigne Mountakha Bassirou joxoñ moom maire bu Touba Abdoul Ahad Ka ginnaaw bi nga xam te ni bii génn lu toll si ñett téeméeri million suñu koppar si wàllu dund goo xam te ne bii moom la bëgg séddale ñi nga xam ñoo ne askanu Touba ak li ko wër di joxoñ boo xam te ni bii Serigne Mountakha mu ngi ko joxoñ ginnaaw bi nga xam te ni bii woote na ñëpp ñu dimbalante maire bu Touba nag buñ sukkandikoo source ak génn toll si boobee ba léegi ñett téeméer ñaar fukk ak ñetti million suñu koppar ngir jàppale ko askan wi ba jamono ji nga xam te ni moom la ñu dund ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la am ñu si ëpp si xëy ñu bañ koo yëg jamono yi nga xam te bii réew mi yëpp ñu ngi si jafe-jafe jafe-jafe yoo xam ne coronavirus bi moo ko jur